Fatima lay nuyu di mm-hmm. nuyu euh, Malick le ñu nekk ci plateau bi Ibou mm-hmm. ak euh, sama grand boobu tamit. Cheikh tijan Cheikh Tidiane voilà merci beaucoup euh, Père Chérif nag tey mooy journée bi ñu jagleel l'enfant africain moom nag muy militant ci lu jëm ci àq ak yelleefu tout tànk yi moom Père ñu dem ci waxtaan bi Chérif. waaw Pedro comme yow yàgg nga jiite sax ay kuréel yoo xamante ni dañuy défendre àq ak yelleefu xale yi jëm kon ci seeni droit par depuis parlement des enfants gis na nag évolution bi ñu bëggoon taxaw seetlu ci la situation des enfants fii ci Sénégal diagnostic bi lan la à ton avis. d' accord jërëjëf euh, maa ngi lay rafetlu émission bi di nuyu téléspectateurs yi ñuy mm-hmm. waaw xam nga loolu moom boo ko waxee rek dañ ci dafa yomb nañ euh, yomb na saytu. parce que boo xoolee tey si suñu réew Sénégal dafa am lu ñu naan la stratégie nationale pour la protection des enfants. Mm-hmm. maanaam mooy politique boo xamante ne dañ ko tënk. pour wax ñun nañ ban vision nañ am ci wàllum protection des enfants loolu nag ñu fi am ci Sénégal depuis 2013 depuis 2013 Sénégal disposé na la stratégie nationale pour la protection des enfants mais ci loolu da ngay gis ne euh, dafa am ay dispositifs yu ñu teg ak ay mécanismes pour aar sàmm ak ak yelleefu xale waaye nag dafa am lu ca sooxe la ca sooxe mooy euh, tey jii soo xoolee sax ci stratégie bi parce que dañu ne dafa am trois piliers c'est la euh, la prévention maanaam dañuy prevenir lépp loo xamante ne day dal xale bi ci ci ay ñaawteef wala yeneen la prise en charge si bu ko dara dalee mais aussi tamit dafa am hmm, la promotion des droits des des enfants c'est-à-dire que ak ak yelleefu xale yi nan lañ koy mën a gën a sensibiliser askan bi pinc mi pour ñu mën a nekk affaire xale yi mais soo xoolee ci loolu euh, Chérif euh, ci premier plan d'action bi euh, pour ñu xam ci objectif bi 12 pour cent lañ ci exécuté deuxième plan d'action bi 8 pour cent nañ ci exécuté même tey jii sur trois piliers yi euh, sur la protection euh, euh sur, sur la SNPR ci trois piliers yi pour cent yi. Euh, 40 pour cent yi kenn exécuté wu ko plus de 40 pour cent kese nañ ci exécuté. 10 ans après. 10 ans après. la SNPR lool lool c'est un problème xam nga loolu la loolu la loolu la sañ Moustapha euh, sëñ Cheikh Tidiane Sy Al doon wax nee na lu siw lu yegg ko gën. donc tey jii nag dañu gëm ne tey la stratégie teg nañ ko am nañ vision fii ci Sénégal mais dafa sooxe

nekku fi priorité parce que soo xoolee régime yi fi mu sa nekk ñëpp euh, xam nga suñu constitution tey jii dañu ne xale euh, âge bu am ba mu am bu amee 6 ans ba am 16 ans état bi moo war a garantir éducation mais tey jii soo xoolee euh, am na ñaari éducation yu fi am mooy l' formel boo xam ne da ngay dem à l' mais y' a aussi l' éducation des daara et l' des daara l' des daara éducation non formel et l' éducation non formelle bi nag tey jii boo xoolee tey ci dernier jour yu ñu dund tey boo xoolee am na ci impact ci lu ñuy gis nii tey jii parce que boo xoolee xale yu bëri tey jii nii tey euh, état bi leen en charge parce que xale yu war taxaw ci ci ci euh, ci mbedd mi ñoom tamit dañoo bokk ay doomu Sénégal nañ seen waajur am nañ droit ne man sama doom amul droit dem euh, bugguma mu dem école école kii école française dem dama koy yóbbu école daara dama koy yóbbu daara mais nag loolu état da ko war a garantir bon teg nañ fi nee nañ euh, ci loi d'orientation bi am nañ loo xamante ne teg nañ ko ci ne xale yi kat dañu leen war a dañu leen war a aar dañu leen war a dañu war a nekk dañu war a am droit à l'éducation mais soo xoolee ci euh, ci nu ñu koy doxalee loolu problème la problème boobu nag je pense que euh, tey jii nii. état bi daf ci war a am rôle bu important bu ci bu mu ci war a jouer mm-hmm. mais aussi la société civile aussi dafa am rôle bu important boo xam ne war na ko ci jouer mm-hmm. waaw et la famille dans tout ça parce que ñi ngi wax ci xale yi nekk ci euh, mbedd yi mais ci société bi neewul ñoom rek ñooy problème am na xale yoo xam ne sax ñi ngi ci biir kër yi euh, problème la ñu parce que des fois seen parents yi li war ci ñoom du duñu ko def par exemple dangay ngay gis euh, soo demee Europe yow da ngay am sa doom su tardé ñaari yoon école sax ñu andi la problème ne la yow est-ce que yow kii yaa ngi koy toppatoo bu baax est-ce que nii nga ko yoree noonu nga ko war a yoree parce que l'enfant est venu deux fois en retard mais fii da ngay gis ay xale yi kenn toppatoowu leen te loolu aussi problème la au niveau des familles. waaw euh, xam nga li ngay wax nii c'est-à-dire que mooy penc mu feebar xam nga tey ji su waxee njëkk xale dafa am fu mu jóge mooy ci kër ga kër ga mooy famille ba. mooy famille bi mu jógee nag tey jii nii dafa li ngay wax dafa nekk loo xamante ne lu lu lu dëggu la parce que parents yu bëri dañu seen responsabilité dañ ko dindi ci xale missionné boo xoolee oustaz Alioune Sall sax dafay wax naan hmm. xale yu bëri seen waajur génn na àdduna ba ñu dàqee bon ba que ce ñu nekk ci ñu am dara ñuy mën a téye seen doom man <laughs> bër démb sama sama doom ba muy def ba muy waaja a tëj ba ma demee di ko di ko euh, di dem ci seen école dafa am loo xamante ne dafa ma marqué parce que la plupart jigéen ñi rek laa fa gis gisuma fa père de famille bi góor bi daal di ñëw xool doomam ndax jàng na ndax doomam accompagner doomam loolu tamit loolu dafa nekk loo xamante ne dafa nekk problème mm. mais aussi euh, sëñ bi ku fi nekkoon léegi professeur bi fi nekkoon léegi wax na ko xam nga valeur yi dafa am problème te dafa sooxe tey jii suñu réew parce que xale yi léegi ndigam mag ñi sax ñoo amatul fu ñu wéeruwaay massakaak xale yi parce que tey jii imaginer tey jii ce qui se passe tey ci Sénégal. boo yeewoo suba teel lan ngay njëkk lu c'est-à-dire que lu ñuy njëkk a dem déglu mooy tës ak xalaas. lan la c'est-à-dire que amatul ci réew mi. fait divers te fait divers bi lu ciy am mooy. ëllëg démb dañ doon gis ne tey su problème amoon da ngay dem sa nijaay wala da ngay dem si sa rakku papa. Mm-hmm. dem wax ak moom mais tey jii yow tu préfères dem. ci tës. Mm-hmm. wala ci xalaas. pour daal di dem wax fa loolu. dafa am benn woykat bu important bu tudd Souleymane Faye ne ay mbokk dañuy bokk. maintenant nag yow loolu noonu day répercuté wu ci xale yi plus nag aujourd'hui les réseaux sociaux yu fi nekk nii. tey boo ñëwee ci kër. ku ci nekk xoolatul sax ndax doomam mi ngi jàng. mi ngi ci whatsapp bi mi ngi ci facebook bi. mais thème ren bi sax c'est sur ça mooy protection droit de l'enfant dans l'environnement numérique parce que gis na nit lu numérique aussi ni mu mën a jariñee la mën a indee gàllankoor ci xale yi. waaw effectivement mais xam nga Sénégal muy pays boo xam ne ne lépp lu ñu leen indil dañ koy ratifier mais pour ñu taxawal ko parce que tamit loolu tamit état dafa war a garantie ci wàllum euh, les dérives sur les réseaux sociaux loolu état bi da ko war a nekk loo xam ne te lu mu wër a garantie la ci pour la pour la protection des enfants mais soo xoolee ne tey jii euh, xale yi dañ leen di harceler de façon ci euh, dérive yu am ci réseaux sociaux yi de façon psychologique de façon sexuelle mais aussi de de façon idéologique parce que tey jii boo xoolee luy xew luy xew tey jii si si jamono bi xale yi ci loolu la ñuy def parce que y mondialisation loolu toujours tamit dañ ci war a bàyyi xel amuñu loo xam bànqaas boo xam ne. wër na mën a xam boo dafay war a mën a protéger les enfants. Mhm. Euh, man bëggoon naa peut-être ñu xam ban solution parce que yàgg nañu di def plaidoyer bi mais euh, ba léegi xale yaa ngi am ay jafe-jafe euh, yaa ngi gis tey booy xëy fajar ci mbedd ma gis nga xale yi ñu ngi fanaan ci mbedd bi laissés à eux-mêmes bu yàggulee on a vu quand même ki ñu ne sëriñ daara la te mu ko doon bubboo mu violé. ay xale donc moment bi nga xam ne ñu ngi fêter quand même l'enfant africain y a beaucoup d'enfants qui rencontrent des difficultés extraordinaires tey boo leen laajoon ni ci mbedd mi lan mooy journée de l'enfant africain amaana xamuñu ko xamuñu seen ak ak seen yelef ban solution nga jàpp ne war nañ koo mën a teg ba xale yi dootuñu nekkat ci mbedd mi di di fa fanaan ba xale yi dootuñu subir ay viol dootuñu subir ay violence psychologique waaw jërëjëf Faty xam nga tey jii nag il faut que taxaw xool bala ñuy wax solution mm-hmm. ñun ban njëriñ lañ jox xale si suñuy si suñuy wax si suñuy jëf mais aussi ak tey ji ci yëpp lu ñuy lu ñuy teg parce que tey ji boo xoolee même tey gouvernement bi tey lépp lu muy def parce que y a plusieurs ministères sectoriels tey xale tey ci budget Sénégal euh, lan la ci représenté bala ñuy wax solution parce que bala nga naan naam ne fa loolu benn la ñaareel bi mooy tey ji ñu ni wax dialogue national bi Euh, keroog ba ma demee tasante dem ci dialogue national bi dama tasanteeg mu ñaay Cissé ma ne ko il faut que des fois boo leen di wax la société civile nañu wax ci wàllum àq ak yelleefu xale yi. Mm-hmm. parce que loolu aussi c'est très important. Mm-hmm. plaidoyer bi gars yi porté ko mais tey jii soo xoolee tey suñuy wax ci wàllum enfant dañ koy wax de façon événementielle émotionnelle événementielle mooy tey 16 juin jot na wala 20 novembre jot na ñu wax ci wàllum àq ak yelleefu xale yi émotionnelle bi mooy. tey jii xale yi violé nañ leen wala dara am na ñu doog a ñëw ne ah ñu daay ñëw indi débat te moi je pense que ne loolu réew bu ñu ko wëree bu ñu ko bëggee tabax pour ñu mën a taxaw il faut que xale yi ñu xool nan nañ leen di mën a tegee ci yoon nan nañ leen di mën a nan nañ mën a xamee seen avenir mais mais yaa ngi wax état yi mais société civile yi nga xamante ne en tout cas ci mbiram xale la ñu yëngatu aussi di dem ci séminaire atelier yi et ñoom it di mbubboo xale yi ngir am xaalis te sur le terrain gisul action buñ mën a ngir améliorer mais mais mais mais Chérif loolu tamit responsabilité état la parce que tu sais xam nga dafa am ne tey ji képp koo xamante ne muy ONG muy lépp dañ bu ñuy wax ne dañuy wax ci wàllum protection des enfants jàpp naa ne fin d'année war nañ mën a tous déposer seen rapport et que tey sooy xool même la stratégie de la protection des enfants dañu ne ñun dañuy dóorandoo mais loolu ku ci nekk ci ONG yeeg yooyu mu ñuy toog coin di def moom la ko intéressé ak la ko arrangé te état bee ñu toog di seetaan mm-hmm. loolu c'est un problème ci mm. ci thème bi man ci thème bi sax laa bëggoon tam dellusiwaat quoi parce que lu jëm ci wàllu jumtuwaayu xarala yi xale yi seen seen jamono la ñoom ñoo tombeek moom xëy na ñun ñun ñun moom daanaka ay analphabète lañu ci yëf yi li ci xale yi man sax mënuñu ko ci mm-hmm. mais encadrement bi war ak surveillance bi war ci xale yi dafa mel ni amul parce que ñu ci bari dañuy jox xale yi tablette rek bàyyi leen ak seen bopp ñii ay dessin animé la ñuy def ba boo leen gisee comportement wu Mickey la ñuy am ñii ay yu violent la ñuy seetaan ba finalement ils deviennent violents ñii comme ni nga ko waxee ay mbirum sëy la ñuy seetaan ak yu ni mel est-ce que la responsabilité aussi ubbil jumtuwaayu xarala yi xale yi te àndul ak encadrement du indi yàq-yàq bu nga xam ne du ñu xam ni ñu koy defaree. waaw moom la sànq grand bi doon wax que ne il faut que ñu ñàkk xale yi. parce que tey jii mënoo jël sa doom jox ko téléphone. te doo xam lu mu ciy def. voilà loolu tamit responsabilité des parent la mais aussi tamit état bi tamit ban rôle la ci war a mën a jouer aussi loolu c'est important parce que xam nga bu ñuy wax wàllum wàllum xale moi damay damay jëm ne joxuñu ko priorité fii ci Sénégal. parce que bu ñu ko joxoon priorité fii ci Sénégal je pense que ne am na yenn affaire yu bëri yoo xamante ne tey jii duñ ci duñ ci yegg lépp loo gis pour aar xale am na fi mais pour nga pour ñu exécuter ko ça un problème. mais Euh, man ci li fi xew fan yee ñooy mhm. manifestation yi mhm. gis nañ ci benn image boo xam ne daf ñu metti ñun ñëpp mooy xale boobu ñu jëloon en bouclier mhm. donc euh, leneen lim ci toftal mooy euh, généralement vous les militants euh, des droits des enfants li ci ëpp bés yi lañ leen di dégg li ci ëpp bon peut-être mën naa juum mais tey lan moo war a doon seen taxawaay au-delà bés yi nga xamante ne moom lañ jagleel xale yi lan moo war a doon plaidoyer tous les jours euh, fexe sax ba au niveau de l' assemblée nationale seen droit ñu mën ko di donte député yi ñu ngi ciy def ay jéego ñu mën ci gën a taxaw bu baax a d'abord man dama lay wax ne mois je suis un militant des droits des enfants duma ma euh, du ma fonctionnaire des enfants loolu benn la ñaareel bi mooy aussi man dama am légitimité pour wax ci wàllum protection des enfants et ne loolu bu fekkee ne tey jii nag soo xoolee dañuy xool loolu média bi ban rôle la ci am tey jii soo xoolee wàllum protection des enfants dañ koy def de manière populisme tu vois des activistes des ñoo xamante ne amuñu ci benn connaissance di wax ci wàllum protection des enfants non man man man man man sama sama choix mooy li ma doon wax 15 ans mi ba léegi loo xamante ne ay président Alioune Tine ay Seydi Gassama ñu bëri dañ doon ànd di wax ci wàllum protection des enfants dama gis ne dara changé wu dama gis ne tey jii nii affaire bi dafa am benn group rek boo xamante ne ñoom laa tuddee de fonctionnaires des enfants donc loolu nag su amee nag da ngay am dangay taxaw da ngay taxaw seetlu. Mhm. parce que da nga naan man du ma ca bokk. mais mhm. am na foo xamante ne nag boo ci taxawee. il faut que nga perdre yow talatoo xale de ndax yaa ngi politique léegi. non yaa nga HLM di xëccoo yu maire laa gis sax ci terrain bi. non non du politique moi je suis local xam nga politique. xam nga xam nga politique na grand. du lu bon de. conviction la. engagement la détermination la. Hmm. donc nekkul loo xamante ne te politique boo ci taxaw boo ci boo ci nekkee di ko di ko di ko def. man dama damay damay politique pour sama gox. léegi municipalité ba nga nekk conseil loo fa defal xale yi. waaw mais man actuellement nii maa ngi maa ngi xalaat benn programme boo xam ne dañuy war a mën a def un conseil municipal des enfants bu ko maire bi nangoo. très bien mm, d'accord merci beaucoup Père Ndiaye. ñu lay jaajëfal bu baax. nga nekkoon euh, suñu invité. Euh, ñu dem léegi léegi ci ñaari yenn kaay yi Groupe Futurs Médias.